الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلدي قلنا بني سنتي يلا سيدنا محمد جلدي أي نعم أكي صحابا سن بوكو سن خريد سن صفحة شحمد التجاني لو موديل سي أكيين ci seen émission al hidayatu min al kitaabi wa sunna tabarakallahu ñu ànd ci ak seen mbokk tabarakallahu Samba si mu mel ni waxtaan wi ñu génn ñu ngi doon waxtaan ci Karbala tabarakallahu ñu def bayna qawsayni rek e, ndax ñu ngi woon ci Mus'ab ibn Umayr ci suñu waxtaan wale bii nag ñu ñëw tabarakallahu fas yéene waxtaan ak yéen ci e, Karbala ñu commencé won premier partie bi wala ñëw nak ci deuxième partie bi tabarakallahu kon ñun ngi go nak yéen ci Seydina Xuseyn radiyallahu anhu tabarakallahu mu mel ni Seydina Xuseyn alayhi salam yabalna doomu bayam di muslim ibn aqil pour mu xoolal ko laablul ko xabaar bi ndax lettre yi nga xam ne bind nañ ko ko di ko woo foofu ci kufa ngir jaayanteeg moom nañu jaayante woon ak baayam ndax ku ne xam na ne Seydina Ali karamallahu wajha bi ñu ko falee xalifa mission mi yëpp mu ko defee foofu ci Irak wante ñi xam irakien yi xam nañu ne duñu ay nit ñu wér nit ñu bëgg àdduna lañu te itam amuñu benn décision lu ñu dugg rekk mën neen ci génnaat ci saasi mu mel ni bi nga xamante ni Seydina Ali génn na àdduna te ñu rey ko bom ko foofu ci Iraq ñu denc ko foofu ci Iraq dañu jaayante woon ak Seydina Hassan mi nga xam ne moo di taawam kon mu mel ni Seydina Hussein mi ñuy waxtaane amoon na mag magam moo di xasan moom moo ci topp di xuseyn kon bi bàyyam génnee àdduna dañuy jaayante ak magam moo di xasan seydna xasan tabarakallahu def six ci xilaafa gi donn bàyyam nekk xalifatal muminin Eh, yàlla dogal l'islam bi nekk ñaari tendance te moo di Muawiya moom moo nekkoon nag baayam doon xëccu nguur gi baayam Seydina Ali mu am doole lool nekk foofu ci Sham ci Dimashq bi mu yëgee ni nañu ak Seydina Ali te lu tolloog eh, quarante mille jaayante nañu ak moom moom Seydina Xasan ci la Seydina Muawiya dajale lu toll ak soixante mille soldats pour attaquer Seydina Xasan ci biir daje boobu ñu war a daje Seydina Xasan yëg na ci ne waa Irak amuñu pas-pas seen ngëm dafa des te nit ñu doye di leen ci wàllu pas-pas mu gis ne xare bu amee digganteem ak Muawiya lislaam rek ay perte parce que laa ilaha illa allah mooy rey laa ilaha illa allah mu étudier xew-xew bi ci xelam bañ jiital xolam bañ a jiital bëgg-bëggam bañ jiital ay intérêt mu xool intere jullit ak intérêt yàlla ci boppam mu gis ne xare bi buñ ko sooboo lislaam rekk ciy perte ay jullit rekk ciy dee benn yéeféer du ci dee mu gis ne itam ñii nga xam ne ñoo ko gunge duñu ay nit ñu wér mu daldi nag euh, négocier ak Seydina Muawiya tëralal ko ay charte wax ko ay bëgg-bëggam ba ñu d'accord ci ne euh, bu Muawiya génnee àdduna Seydina Xasan moom mooy toog ndax Muawiya moo ko mag fuuf tabarakallahu mën nañu wax ne moroomu baayam la mooko mag fuuf kon njorta ngi doon rafete ci ne Muawiya mooy njëkk a génn àdduna Seydina Xasan sina hasan ne ko kon bo genné aduna mbir mi dellu ci samay loxo ndax nek fi di xëccio dal du intérêt l'islam bi du intérêt julit ni julit di nonu moromam di ray moromam loolu nekul won ci sama yi bay sama yi mam loolu amul won sama yi mam loolu amul won te xëccio bi mo indi ñu ray sama bay, bakkan yu bari dee nañu ci maarakatu maarakatul jamal bakkanu jullit ñu bari dee nañ ci e, maarakatu siffayn moo ne ko kon nag du yenu responsabilité bu toll noonu ñaari soldaar daje kenn ku ne gëm yàlla gëm yonent ñuy rayante mel ni yéefee rek mooy rayanteeg jullit loolu duma ko def tabaarakallaahu sidna xasan moomu nag ñu commencé di ko jam ci wàllu googu kon seetaan nañu sidna ali ba ñu rey ko ci seen kanam ñoom waa iraq ñu tourné itam di xas sidna xasan ci lii nga xam ne def na ko te itam ñu ngi ko doon dugal te bu duggoon ci xeex bi ñu seetaan ko ndax ay warkat lañu waaye yàlla may ko nag ci leeru maamam mu gis ne ñii dañ ko nar a gàcceel mu gis ne itam lislaam bi mu ngi ci crise mu fexe ba résoudre problème bi ci nangoo wàcce darajaam pour l'islam am jàmm ak jafe wax nañ ne sax loolu moo tax moom ci ay sëtam ci la yàlla di génne imamul mahdi ci la yàlla di génne itam ci la yàlla di génne boroom alqutbaniyatul uzma looloo tax cheikhu tijani génne ci imam hasan mooy al qutbaniyatul uzma mooy boroomam bi ñu xoolee càllaleeg seyd cheikh dafa dem ba ci na hasan jàmm jooju nga xam ne woote na ko ba tax ni nit ñi bëggee nguur ba ci faat ay bakkan ku taxaw contre la nga mën a faat bakkanam dagg boppam man cee rey ay junni junni nit ngir defendre sa trône defendre sa nguur su fekkee moom Seydina Xasan loolu teg na ko ci digg ci gannaaw loxoom ngir jullit ñi am jàmm ñu ne mag ñu bari wax ne ne looloo tax suñ boroom fayee ko boroom xutbaniyatul uzma nekk sëtam te imaamul mahdi itam sëtam lay nekk mbokk yi nu ngeen di toppee téere yi di ko yër di ko jàng di ko xool di ko càmba lii lépp mag ñi wax ko ci imaamul mahdi imaamul mahdi al muntazar suñu toll bu ñu xoolee càllaleem mu ngay yegg ci yonent bi sallallahu alayhi wa waaye yow nag ñàkk jàng tax ku ne may imaamul mahdi rek nga topp ko ba ki démb say say bi ñuy wax marba nyuko ñu ko tudde boppam el cheikh ci ñak mëna prononcer arab motax mu naan el cheikh ndax tubaab la jang su jangon arab naan al cheikh waye el cheikh yow est ce sax xam nga ki jur sa bàyyi bàyyi est ce xam nga ko ba mën a topp sa càllale ba mën a jëm ci yonent bi yow doo shérif te imaamul mahdi shérif la war a nekk imaamul mahdi day niroog yonent bi yonent bi sallallahu alayhi wa na maag moom benn la ñuy nekk baayam abdallah lay tudd ah yaayam amina lay tudd ci ahlu bayti rasul lay bokk shérif piir lay doon maar ba foo nekkee shérif fan nga nekkee shérif moo tax boo jàngul ñu nax la il fallait nit ñi jàng boo jàngul ñu nax la te léegi jàng yomb na dugg leen ci internet ngeen xool kan mooy imaamul mahdi xadis tabaarakallaahu yi ci wàcc yépp ngeen càmbar ko xool ko seet ba xam ndax bu ngeen jële loolu analyser ko da ngeen mën a gëm ñi fi woote imaamul mahdi imam xasan moomu ci sëtam ci la imamul mahdi di jóge moom imam xasan nag mooy magu seydna xuseyn ñu ngi teg nag suñu baaraam ci muslim ibn aqil bi mu duggee iraq ba woote ba nga xamante ni lu tolloog dix-huit mil am na ko ci ñoo xam ne jaayante nañook moom ba tax mu bind seydna xuseyn ne ko ñëwal terrain bi lépp baax na fii ñi fi nekk ñëpp la gëm tabarakallahu wante nag ibnu ziyad ubay ibnu ziyad mi nga xamante ni yàlla dogal na eh, Yazid fal na ko daal di wàcce Nu'man ibnu Bashir al ansari mi nga xamante ni moom kaana osmaniyan Seydina Ousmane la doon jàppale Muawiya moo ko fal mu nekk eh, gouverneuru Kufa bi Muawiya génnee àdduna Yazid ñëw confirmer loolu bàyyi ko fa waaye lu tax Yazid folli ko mooy gis na ne dëgërul lool pour jëflanteeg Seydina Hussein bi nga xamante ni révolution am na ci biir Kufa Seydina Hassan mënuñu dugg mukk ci histoire Seydina Hussein te duñu wax ci Seydina Hassan tabaarakallaahu Seydina Xasan mooy sët bi yonent bi sallallahu alayhi wa njëkk a teg bëtam tabaarakallaahu moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boppam moo ko tuddee itam alxasan ndax moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ni yàlla dogal na soxna si mucc muy saydatuna Fatima ci li nga xam ne nangoo nañ ko ci seydna ali ibnu abi talib mu ne lamma wulida alxasan jaa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam aruni aruni أروني wa وقال ma سميتموه قلت سميته حربا قال بل هو حسن فلما ولد الحسين سميناه حربا قال بل هو حسين فلما ولد الثالث جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أروني ابني ما سميتموه قلت سميته حربا قال هو محسن ثم قال سميتهم بأسماء ولد هارون عليه السلام وتوفي محسن صغيرا سينا حسين مغم جباخ جيدي سينا حسن سينا علي ميسن باينانا نانا بي أسن جدو نيك بريمير سب نخ الحسن بن علي لن ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن, ابن هاشم ابن عبد مناف القرشي الهاشمي صبت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أول أولاد فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة نساء العالمين سيدنا حسن Seydina Ali moo ko jur Seydina Ali Abu Talib a ko Abu Talib Abdul Muttalib a ko Abdul Muttalib Hachim moo ko jur Hachim Manaf a ko kon Seydina Xasan Qurayshi la Hachimi yi la di sëtu yonent bi sallallahu premier doom bu Seydatuna Fatima njëkk a teg bëtam Seydina Ali nee bi mu juddoo yonent bi sallallahu alayhi moo ko ngénte àq anhu sallallahu alayhi yow sallam yowma saabiihi moo wat kawar ga mu digle ne nanu peese kawar gi lu mu tollool ci xaalis ñu saraxe ko Seydina Ali nee na bi Xasan juddo yonent bi dafa ñëw ci kër gi ne wan leen ma sama sët nee na ñu wan ko ko mu laaj ma ne man noo ko tu koo ko tudde noo ko tudde mané ne ko tuddé harb bi firi xex guerre la tuddé sama dom bi yonent bi ne bal huwa hasan man de asan la tuddé sayna ali ne ko kon nak weyna man sama kër lo fi weyel rek waaw lo fi wax rek mom lañuy weyel mu ne kon nak dindina guerre bi tuddé ko lo rafet lo rafet hasan moy lu joli lu rafet tabaarakallaahu nee na ñu teg ci juróom fukki guddi sayyidatuna Fatima daal di jàppaat ëmb looloo waral ñu ne Asan ak ñu bari foog na ay cheikh leen fekk soxna si daf leen nef waaw daf leen nef bi muy nàmpal Seyna Xasan juróom fukki guddi leen ci teg mu jàpp ëmb tabaarakallaahu moo tax ñu bari bu ñu amee ay cheikh tudde leen Asan ak Useynu mais Asan ak Useynu duñu ay cheikh soxna si daf leen nef mu ngoog nee na bi Xuseynu juddoo itam yonent bi ñëwaat ci kër gi sallallahu alayhi wa wan leen ma sama sët ñu indil ko xale bi mu ne Seydina Ali noo ko tudde mu ne ko sama tur tur wa ma jàppoon daal di xarb te ma tuddee woon ko magam moom laa ko tudde yonent bi ne déedéet bal huwa Xuseyn ba tey rek génnul lu rafet ndax alxasan mooy lu rafet alxuseyn mooy lu rafet dégg nga dañ ko tasxiir rek lu rafet lu mat sëkk ak loo xam ne as lu rafet mooy xuseyn e, mu toogaat ab diir moom soxna si yàlla may ko mu amaat beneen doom yonent bi sallallahu alayhi ñëw ne arooni bi nii wan leen ma sama sët bi ñu daal di ko koy wan mu téye ko daal di laaj Sidna Ali koo ko tuddee noo ko tuddee mu ne ba tey rek samaytu xarba moom daal Seydina Ali moom xam naa def di jàmbaaru xare moo tax mu bëgg baat bi ne daal ba tey sama xel mu ngi jàpp rek xarb yonent bi ne déedéet bal huwa muhsin nee na muhsin laa ko tudde ba pare ndeysaan ne Seydina Ali samaytuhum bi asmaa i waladi Haarun mu ne ko dama leen tudde doomi Haaruna ya Haaruna am na ñetti doom kenn ki Xasan la ko tudde ki ci des mu tudde ko Xuseyn ki ci des mu tudde ko Muxsin waaye nag ci lakko Ibra mhm. ci làkku Ibra ndax eh, soo bëggee wax Euh, maanaam lu rafet ci làkku arab xasan ngay wax waaye bu dee ci làkku wolof rafet ngay tudd waaw maanaam xasan tey bu fekkoon dañuy euh, firi turam ci wolof kon du ñu wax xasan ñun rafet leen koy tuddee rafet waaw bu dee muxsin ñu tuddee ko kii rafetal mu ne ko nag Aruna amoon na ñetti doom kii mu tuddee ko Xasan kii mu tuddee ko Xuseyn kii mu tuddee ko Muxsin ci laa ko Ibra man nag moo tax ma jël sama sët yi tuddee leen Haarun gis nga yonent day bëgg moroomu yonentam waaye ñun dañu foog ne tey suñu kilifa diine yi bëggante wuñu tabaarakallaahu te yonent yi yëpp bëggante kenn ku ne jàppee sa mbokk mbokk waaw moo tax eh, boo foogee yow taalibe murit bi wala yow taalibe tijaan bi ne sëñ Tuubaa ak Alaaji Maalik dañu bañante jum nga waaw ah, déedéet yow yaay jàpp loolu gis nga yahut ak nasaraan yahut ak eh, nasaraan ak musulman yi ni ñu juboo di mais gis nga seeni kilifa ni ñu juboo xoola yonent bi ay sëtam daf leen tuddee juif yi nga xamante ni arab yi rek la ñu bañ ba loolu moo waral Israël mais nga gis leen ñuy rayante tabarakallahu ak jullit ñi ca Palestine ah ñu ngay rayante te teewul gis nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom boo ko laa boo boo laajee boo toppee histoire xóotal sa gëstu dangay gis ne ndeke eh, sëtam yu baax yi nga xam ne nee na ñooy sangu jeunes yi àjjan àjjana yi ñooy ay parfum eh, danan tee Xuseyna du wax ne yàlla bëggal ma Xuseyna ndax dama ko bëgg waaw mu ne Xuseyn cër la ci man waaw ku ko bëgg rek bëgg naa la tabaarakallaahu xam nga ni kooku eh, ñooñu mu am tudde leen e, tabaarakallaahu e, yonent boo xamante ni juif nga mu jël turu doomam nga tuddee ko ay sëtam nga xam ne ñu baax ñëpp bëggante ñu bon ñi nag ñoo fi nekk di taxatle waaye ñu baax ñëpp bëggante moo tax alquran wax ne amana rasulu bi ma unzila ilayhi min rabbihi waaw ba ca laa nufarriqu bayna ahadin min rusuli kon Seydina Xasan a ngoog e, moo tax bi nga xamante ni yàlla dogal na e, mu donnu baayam dañ ko boomee négocier ak mo Muawiya moom imam Xuseyn mi nga xam ne rakkam la nanguwul woon nee na ko kii daf lay wor d'accord nga ak moom ci bu génnee àdduna yow yaay doon xalifa ndax mag la mais jàpp naa ne bu génnee àdduna dana la wor dana def leneen lu wuteeg li te nii nga doxale d'accorduma ci lu tax yaay sama mag nag ormal naa la respecté naa la waaye sama décision bàyyi ak lim ñu bàyyee du may jàmm Muawiya xeexoon ak moom mooy li sama baay bëgg te wuute nga ak sama baay ci lii Seyna Xasan ne ko tëyal sa làmmiñ te nga noppi xale nga li may def maa la ko gën a xam ah comme ñoom ñu yaru leen te am orma te kuy wut yar ci ñoom nga koy wute ndax yàlla leen laabal yàlla leen sellal Seyna Xuseyn ca yar ba ak teggin ba mu ne pat waxul dara waaye nag d'accordul ak magam waaye itam opposé wu ko Seyna Xasan nag xam na ni waa Irak ay warkat lañu duñu ay nit ñu wér mu faf nag gedd Irak dem Madinatul Munawwara dellu ca fa ñu denc maamam ak yay ji ko jur muy Seydatuna Fatima mu toog nag mag eh, waa Irak yi nag di ko xas mu ne ngeen sama baay ba noppi eh, di ma jam di ma sànni ay kàddu yi ñaaw bay wax ne eh, bëgg jigéen jumu takk rek moo waral talul nguur gi te bu fekkonte ne loolu ñu wax dëgg la su jiite woon julit ñi ci lay am possibilité gën a mën a takk ndax ci la alal ji di ñëw mu mën a def lu ko neex waaye dafa bokkoon moom ci sunnaam moom Seydina Xasan mooy daawul téye jabar da daan fase rek takk di fase rek Seydina Ali jàmbat na ko ba ne waa Irak yi bu leen ko mayeeti soxna comme moom mënta téye jabar bu leen ko mayeeti soxna moo tax fase na lu lu toll lu jege téeméeri jabar waaw waaw moom moom daawul caaxaan waaye da daan takk waaw bis bi mën na cee fasandoo ñaari soxna mais mën na cee takkandoo sax tabaarakallaahu ñaari soxna ñetti soxna waaw ku tabe woon la nag ku mënoon na tereel jigéen moo tax jigéen mi bëggu ko ci des itam dafa niroo woon ak maamam lool sax ne ko nag yi may dugal man xaw ma ko mu ne ko waaw kon baax na kon convoqué Abdullah ibnu Zubair ñu convoqué Abdullah ibnu Zubair mu joxe ngant ba coow li bari ba bari eh, finalement moom bu ibnu Zubair bàyyi ba guddi rek mu génn Madinatul Munawwara jëm Makk Seydina Xuseyn moom itam ca bis ba ca topp moom itam mu génn Madinatul Munawwara jëm Makk ngir rek bañ a jaayante ak Yazid tabaarakallaahu bi mu demee Màkka nag ca la waxtaan ak mbokam ma Haris ne ko waa Cham day waa Kufa ñu ngi may bind lettre mhm. ñu may bind lettre mu waxtaan ceeg xaaris ibnu Hicham ne ko waa Kufa ñu may bind lettre pour ma ñëw ndax dañu bëgg a jaayanteeg man Nu'man ibnu Bachir moo fa nekk neneen jaayante wuñu ak moom bu dee julli it muy tabaski ak kori duñ ko topp bu dee julli juma duñu ko topp comme amir ñoom daal seen xol dafa nekk ci man ne naa ne naa ñëw pour ñu jaayanteeg man xaaris ne ko duñu ay nit ñu wér te boo demee mën neen la gàcceel te buñ la dee dañ lay seetaan euh, noonu nag ku mu waxtaanal rek ci ñi ko wër même kàddu bi leen koy wax même Abdallah nu Zubayru rek moo ko wax ne ko li nga am su ma ko amoon duma fi toog damay dem wante itam ñu ne wax boobu waru ko a wax ndax xëy na bëgg na bu no demee moom mu mën a wéetoo yilif Màkka ak Medine wante Abdullah ibnu Abbas moom dafa insister lank ne ko bul dem euh, baneko suma ko su ngoy ci sa bop bi dugal sama loxo yek sama baram yépp ci sa bir bop bi teel ne la do fi joge kon ma def ko way mënuma ko waxtan ak euh mu gantal mu delu waxtan ak mom ba proposer ko ne ko te nga dem yaman mo gën ngay dem iraq mu ne ko ndax nitu yaman mo gëna wër nitu iraq irakiyen yi wéruñu mu ne ko gis nga yaman yonent bi yabal na fa Xaalid ibnul Walid ak ni Xaalid mel toog na fa diir bu yàgg nangu ñoo dugg ci lislaam jaare ci loxoy Xaalid Xaalid dafa mujj dellu si yonent bi yabal sa baay Seydina Ali mu ñëw fa def discours tabaarakallahu waa yaman yépp daal di tuub dugg ci lislaam mu ne ko ñooñu ni ñu bëggee sa baay jéggi na dayo te duñu ko wor tey nga dem foofu ba am mbooloo mu dëgër mu la mën a protéger nga soog a seet leneen looy def wante Seydina Xuseyn daal di gàntal moom daal la mu gis mooy dem tabaarakallaahu eh, yebal na nag muslim eh, eh, muslim mu nga fa defar na terrain bi tabaarakallaahu woona nit ñi am na lu tolloog dix-huit mille yoo xamante ni gëm nañu ko topp nañu ko itam war nañ ko ne ko ñun ak yow ba ba ñuy dee xam nga eh, tuddal nañ leen yaman nit ñu wér lañu gis nga Seydina Muawiya bi muy dénk Yazid doom ji daf ko xamal carrément ne ko Sham gi ma ne muy Syrie ay nit ñu fidèle la fi nekk ñu wér ñu baax yàgg na jiite leen jiite na leen ay ati at lenn rek a nekk ci ñoom mooy ndox mu ñuul lanu loo leen booleel ñu ànd ak ñoom ndox mu ñuul boo ko booleeg bisaab mu tudd bisaab boo ko tolleeg ji boo ko booleeg jinjeer mu tudd jinjeer boo ko booleeg soow mu tudd njar mu ne ko noonu la mel. moo tax ay soldaar yi ngi ci am di leen yóbbu ñuy xare ji fu ñu dem xare boo ñooña bu la seen jikko doyul nanga leen fa jëlee indiwaat leen Sham ndax ñoom fu ñu toog rek jël seen jikko fu ñu toog rek jël seen jikko ay nit leen yoo xamante ni dañu mën a gaaw a roy gis nga noonu aussi lañu xamee jikko Irak Irak yi seen jikko mooy wor seen jikko mooy li ñu lay wax seen intérêt liñ ciy jiital buñ ci jiitul seen bopp deltu gannaaw moo tax muslim bi mu ñëwee ak loolu mu am ci mbooloo yépp ba tax mu bind Seydina Xuseyn ne ko ñëwal lépp baax na Seydina Xuseyn moom itam boole lettre yooyu mu yorat lettre bi ko Euh, muslim ibn aqil bind te mooy ambassadeur am boobu mu yebal tax na moom itam mu fabu te ndeysaan Abdullah ibn Abbas waxoon na ko ko boo dee dem bu demee ba mënta ñàkk na nga dem yow dong waaye bul yóbbaale sa famille waaye Seydina Xuseyn moom dafa yóbbaale famille am yëpp ba yóbbaale sax famille Xasan tabarakallahu mu daal di fabu nag war ñëw euh, muslim yàlla dogal na ubaydullah ibnu ziyad ñëw na folli nanu nu'man ibnu bashir jëmm ju tedd ju baax jooju nga xam ne orma rek la ëmbal ahlu bayti rasul folli nañ ku indi nanu saay-saay bu réew bu ñàkk teggin mu di ubaydullah ibnu ziyad bi mu ñëwee masqué wu na dugg na ci pale bi premier combat mooy lan fexe ba muslim mii nga xam ne moo tax ñu bëgg nangu ko fa ci seen loxo te Yezid yebal ko pour mu jëflanteeg moom li mu bëgg mooy daal di koy rey benn yoon rek waaye mënu ko gis xamul fu mu ne ndax moom bi mu njëkkee ñëw Eh, tabaarakallaahu dafa wàccoon ci kër al muxtaar ba mu fa jógee ca la dem ca haani ibnu urwa léegi nag ñu ngi koy wër mënuñu ko gis eh, am nañ seen mot de passe bu ñuy paasante am na nu ñuy waxe moom daal ci diir bu ndaw waa Kuufa yi yëpp jaayante nañu moom ba nga xamante ni eh, Yezid amatul ci Kuufa dara waaye kii mu yebal nag njuuma ci wàllu politik bi mu ñëwee ndim njëkk a def mooy eh, gis benn waay bu ñëw wax Maaqil waa ju ngi ni moom waa Cham la du irakien ndax am na loo xam ne jàmbur rek a koy sañ waaye ki dëkk ci dëkk bi ñaare du ko mën euh, Ubaydillah jox ko xaalis bu bari jox na ko salaasata alaaf mu di ñetti junni ci seen xaalis ne ko dama bëgg nga espionnel ma ba ma xam fan la muslim nekk ñu mën ko jàpp mu ñëw ci jàkk ji moom maaxil mi espion bu bon bi bi mu ñëwee ci jàkk ji daal di fay fekk benn waay buy julli julli gu rafet macha allah mu ne ah, kii day ko ragal yàlla la te ñaare ñi ragal yàlla duñu fen li nekk ci ñoom rek leen lay wax waajaa ngay julli julli ko rafet macha allah bi waaji sëlmalee mu nuyu ko bi mu ko nuyoo ne ko man dey dama laa jis rekk sopp la te itam nag ma dégg ne am na ko baax ku fi ñëw ko xam ne Seydina Xuseyn ibn Ali ibn Abi Taalib moo ko yebat Seydina Xasan dafa niroo woon ak maamam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañu ne moo gën a niru maamam ci Xuseyna ndax dañ ne la ko dalee ca dënn ba jëm kaw loolu la gën a niru maamam bu la nee jàkk rek nga jàpp ne yonent bi nga jàkkaar lool ca taar baak lépp waa Seydina Xuseyna nag jëmm ji boo ko seenee muy dox rek da ngay bu la wanee gannaaw sax da ngay foog ne yonent bi la ndax moom la ko dalee ci dënn bi wàccee suuf lépp daf ko niru yonent bi sallallahu alayhi wasallam tànk yaag ne bi xawoon a rinki tuuti waaw tabarakallahu doxin waag yépp loolu la ko Seydina Xuseyn a gën a niroo maamam moom mu gën a niru maamam ci la ko dalee ci dënn ba jëm ba ca kaw tabarakallahu moo tax jigéen ju mu masaana takk nga kontaan waaye bu la fase nga bëgg a dof moo tax Seydina Ali daan wax ne damay ragal euh, lii muy def di di ñu jural noon ñun ahlul bayt waaw ñun ahlul ndax ku xam ne ne fasekat dagan na waaw waaye nag moo gën leneen waaw takk di fase moo gën leneen Seydina Xasan tabarakallahu ñëw nag madinatul wara daal di toog seydna muawiya mu ngi koy xaar moom seydna xasan ci li ñu waxante ndax dana ko def wala déet waaye seydna muawiya moom am na leneen lu mu nar te li mu nar moo di wor seydna xusein ak seydna xasan ci limu mu waxante ñoom ci ne eh, tabarakallahu eh, bu génnee àdduna dana leen jox nguur gi parce que Seyna Xasan lim ko wax mooy lislaam nar a perte ci lii ñu nar a def ñi jaayanteeg man bari nanu ñi jaayanteeg yow bari nanu ñu ñu tappaloo di xeex lislaam a ciy perte waaye moom Seyna Muawiya bi mu ñëwee Makka commencé campagne am te boobu mage na wóolootul boppam muy campagnal doomam pour fal ko mu daal di woolu ñi ñuy tuddee al abadila te mooy abdullah ibnu zubair abdullah ibnu abbas ak abdullah ibnu omar ne leen yéen yeneen abadila abadila yi nga xam ne yéen a doon ndaw ci keppaaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ma bëgg nag mooy bu ngeen jàppalee sama doom tabarakallahu su ma fi jógee mu falu ndax xilaafa gi dañu dénkaane woon yonent bi dafa dénkaane ne ci Quraysh lay jóge looloo taxoon waa Medinatul ma Munawwara mënuñu woon a nekk xalifa bi ñu wootee gannaaw yonent bi ne alxilaafatu lil ansaar Seydina Abubakar ne leen xalifa bi ci Quraysh lay jóge maanaam ci muhajirun yi lay jóge kenn ku ne def discours ci ñetti abdallah yooyu abdullah ibnu abbas jóg def discours am wan ko ne ko euh, ñi gën a yeyoo xilaafa yor sa gannaaw moo di ahlu beyti rasul wante nag comme dañu ne ki war a doon yonent bi màkka lay bokk màkka lay jóge bokk ci Quraysh te sa doom ci Quraysh la bokk kon mënuñu ko xañ xilaafa gi kon nag mbir mi nañ ko bàyyi ak ñi nga xam ne ñooy fal ñu seet ku leen doy ci Quraysh ñu fal waaye junj na ko ci biir waxam ne ko ku gën sa doom a ngi fi te moo di Xuseynu ko xam ne dogitu yonent bi la Abdullah ibnu Omar daal di jóg moom itam wax waxam ju jeg waaye ci biir wax ba dana yëg ne xolam a ngi ànd ak Xuseynu eh, Abdullah ibnu Zubayr même chose abadi yooyu nga xam ne ñoo nekkoon ci wetu yonent bi Abdullah ibnu Zubair Abdullah ibnu Abbas Abdullah ibnu Omar ah, amul satisfaction ci li ñu wax waaye mu junju leen ne li ngeen wax dëgg la wante su dee ne lool la kon bi fi yonent bi jógee sallallahu alayhi wa sallam mbir mi du dem ci Abu Bakrin te Abu Bakrin moo ko donn te booba am na ku gën a jege yonent bi abubakarin joxuñu ko ko te mooy seydna ali mu ne gannaaw abubakarin itam ba ñu dajee waxtaan ko war a donn seydna omar a ko jël te seydna omar am na ku ko gën a jege yonent bi sallallahu alayhi wa mooy seydna ali ba mu fi jógee moom itam ñu daje waxtaan seydna Ousmane leen ko jox te seydna am na ku ko gën a jege yonent bi kon nag sama doom su jëlee xilaafa gi te am keneen ku gën a jege yonent bi itam donte Seydina Aboubacar rafetaloon na donte Seydina Omar rafetaloon na donte Seydina Ousmane rafetaloon na jaadu na man itam sama doom war a nekk xalif donte Xasan a ngi fi Xuseyn na fi kon moom ci biir waxtaan wa wane na ne donte Xasan ak Xuseynu ñu ngi fi nekk ay sët moom jàpp na ne doomam moo yey ci nekk xalifa ci la nag jóge Médine wara dellu nag Cham ca Dimashq ba mu demee nag ci bind benn lettre dénkaane ca ne bu génnee àdduna na ko Yezid doon daal di bind nag benn ndénkaane jox ko di ko ca ñaax nag ne ko euh, dana am ay opposants yoo xam ne na leen bàyyi xel waaw ne ko wax na ne bi muy bind lettre bi nag fekk na Yezid nekku fa waaye daf ko jox nag ki ci moom bëkk néegam ne ko joxal ma ko lettre bi lii mooy sama ndénkaane ci moom bu ma fi jógee te mooy وإني لا أتخوف أن ينازعك هذا الأمر إلا أربعة إلا أربعة نفر من قريش منكو خلافة جيما لي جوخ يو سما دوم جابنا نينتي نير رك نيوكو منا خيتوك يو شي قريش لخ كملني حسين waa Irak duñ ko bàyyi mukk ndax nañu jàppale woon baayam noonu leen koy jàppale te li Assane def neexu leen kon moom ci boppam daañu ko xiirtal xemmim loo ko xilaafe gi te bu boobaa itam dana la opposé loolu nanga ko bàyyi xel wante nag fa in xaraja alayka fa dafarta bihi فاصفح عنه فإن له رحما وحقا عظيما منيكو سما دوم كي حسين دي دومو دغيتو يونتي صلى الله عليه وسلم موي سيدتنا فاطمه دي ستم دريكت دوم سا بونيكو خيرتالي تي ba mu jóg di xëccook yow nguur gi ba tax mu génn attaqué la boo xeexeek moom ba jàpp ko nanga ko jëggal nanga ko ormaal nanga nga ko jox cëram ci mbokk gi leen boole ndax sa cousin la bi ci des itam na nga xam ne moo la gën a yey ci nguur gi nga xam ne moo tegu ci sa loxo ndax xilaafa maamam la loolu la ko dénk ci Seydina Xuseyn te wax na dëgg mu ne ko ki ci des mooy Abdurahman ibnu Abi bakkrin moom itam na ko bàyyi xel waaye moom sax day du nit ko am solo ndax nitu bakkan la ñaare du kër ya dara day toppandoo rek te itam dara du yitteem lu dul jigéen kon kooku du la tardeel mu ne ki ci des mooy di Abdullah ibn Omar mu nekko ko nitu xam-xam la ak diine xam naa ne moom lu muy def diineem la ciy jiital tabaarakallaahu te bu ñëpp jaayanteeg yow rek du bëgg lu tas mbolom julit mi dana jaayante ak yow mu ne ko ki ci des moo di abdullah ibnu zubayr mu ne ko huwa alladi yajthumu laka juthuma al asad wa yurawiquka murawaqata althalab فإن أمكنته فرصة وثب مونيكو جيمو جي نك نانكو مويتو te moo di Abla ibnu Zubayr mu ne ko dana bofinu gaynde di la ëkku bëgga dal ci sa kaw te fu la jekkoo rekk dana la song nee na dana la xiiru nag xiirug njàppaanug njàppaan walla xiirug till waaw ne xaj di xiiroo lu mu jëm ci kawam nee na xiiru boobu la lay xiiru saa bu amee occasion ci sa kaw dana dal ci sa kaw kon nanga ko bàyyi xel moo tax mu ne ko fa in huwa faalaha bik su fekkee dal na ci sa kaw fa qadarta alayhi te nga am kàttanu jàpp ko ba téye ko fa qattaahu iraban iraba nam ko dogate dog maanaam dogit di dogit ko rey ba dagate yaram wa mu ne ko nag waaye usika bi qurayshi xayra maa ngi lay dénk sa mbokk yi di waa quraysh nga jëflanteeg ñoom ci yiw xam ne ak mbokk gu dëgër moo leen takkatle sinama Muawiya loolu la dénk euh, doomam ji di moo tax bi nga xamante ni génn na àdduna ba Yazid tokki xilaafa gi fekk ma mu ngi fal ku ñuy wax euh, Walid ibn Uqba moo nekkoon gouverneur Médine ci ja ci jamono jooju mu bind ko lettre ne ko góor gi nag génn na àdduna waaye bëgguma xabaar bi siiw te ñii jaayante bu ñu jaayantewul ci jàmm na nga leen forcé ba ñu jaayante te mooy Seydina Hussein Abdullah ibnu Abbas Abdullah ibnu Omar Abdullah ibnu Zubair moo tax bi lettre bi yegsee euh, Walid ibnu Uqba daal di ciy diisoo ku ñu wax Marwan marwan ne ko balaa ñoo yëg ni góor gi génn na àdduna te moo di Muawiya na nga leen convoqué ñu ñëw nga wax ñu jaayante ku ci bañ nga rey ko yàlla dogal biñ leen convoqué kenn ku ci nekk sa xel ñaaw na ci ne waa ji waxtu wi ñu convoqué daawu ci recevoir ñaaw ci njortu waajal seen bopp ba Seydina Xuseynu ba mu demee ñu gaaral ko ndax moom ba mu gisee Marwaan ak euh, Walid te jubóowuñu dafa foogoon ne sax tabaarakallaahu xëy na dañ ko woo pour mu jubale leen wala leneen waayante mu jigi rek ñu wax ak moom ci wàllu jaayante mu ne leen kon xanaa Muawiya dafa génn àdduna ñu ne ko effectivement ñu ne ko dañu bëgg nga jaayante mu ne mënuma jaayante te nit ñi jaayante wuñu ba noppi may leen ma ma waxtaan ak ñi ma war a waxtaanal balaa maa jaayante ba mu fa jógee Marwan dafa mer ne Walid waxoon naa la ne soo ko mayee jàmm pour nga jotaat ci moom problème la waaw soo ko mayee jàmm pour nga jotaat ci moom problème la kon li nga waroon a def rek mooy tëj ko fii bu bañee nga rey ko Walid ne ko maay rey nag dogitu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maay rey koo xam ne mooy sayyidu shababi ahlil janna commencé di tudd nag euh, manaqib yi nga xamante ni moom la Seydina Xuseynu làmboo woon te yonent bi ko ci moom wax ko ci moom wax ko ci magam tabarakallahu ni ko ndax danga may dugal ci ma rey ku tedd ni mu commencé nag di waxtaan ak moom ne ko dafa am ku ñuy wax muslim ibnu aqil koo xam ne Seydina Xuseyn moo ko fi yebal te man dama bëgg bokk ci seen mbooloo te gis naa ne yéen nit ñu baax ngeen nit ñu yiw ngeen te itam nag yéen a ànd ak ki nga xam ne mooy dogitu yonent bi sallallahu alaihi wasallam di sëtam ma bëggoon nag ànd ak yéen ndax yàlla jox ma alal ma bëgg jël alal jépp jox leen ko tabaarakallaahu ngir ñu mën ko dimbali ko ah waa ji daal di rafet njortu ci moom ba mu paree ca jàkka ja ñoom ñaan ñu ànd mu indi ko ba ci këru Hanik ibnu Urwa ah tabaarakallaahu ndeke waaj espion la kooku moo dem ca pale ba xamal leen muslim ibnu aqil mu ngi ci kër ibnu urwa ndeke mu ngi añandoog ñoom di reerandoog ñoom di ndekkendoog ñoom di ànd ñoom guddeeg bëccëg di jullendoog ñoom waaye su toogee ba guddi rek mu dem def rapport am tabarakallahu wax seeni plan xam na seeni tur ña fay daje xam na ban bis la Seydina Xuseyn di ñëw départ na wala départul secret yooyu yépp xam na ko daal leen di yoole nag ca gouverneur ba te moo di Ubaydillah ibnu Ziyad moo tax ñoom Ubaydillah mu ngi ci pale bi ñu foog ne xamul ci ñoom dara fekk lu ñu reere xam na lu xam na lépp lu ñu waxtaane mu koy fekk ci biir pale bi tabaarakallaahu muslim wax nañu ne ñi ko gëmoon àggoon nañ ci fanweeri junni ñi soldaaru ngir jàppale ko àgg nañ ci dix-huit mille keroog bi nga xamante ni yàlla dogal na euh, muslim war a songu pale bi booba ñële seen nguur daanu na ba fanweeri soldaar rekk ñoo nekk ci pale bi pour garder gouverneur te bu muslim attaqué woon rekk ñu daldi nangu nguur gi ci ñoom wante muslim jekku woon na itam Euh, Ubaydillah ndax euh, bi mu ñëwee moom Ubaydillah ibnu Ziyad di seet si malaat ci kër Urwa ibnu Urwa d'accordoon nañu ci complot pour rey ko waaye ginnaaw si gi ibnu Urwa moo wax ne bëggul daal mu ñëw di seet ci malaat ñu rey ko ci biir këram loolu tax muslim jekkoon woon na ko foofu pour rey ko waaye defu ko jekku woon na ko itam bi mu encercler pale bi mais defu ko loolu lépp dafay dellu rekk ci atte yàlla ak ndogalam Seydina Xuseyn na ngi ñëw euh, soldaar yi wër nañu pale bi Euh, Ubaydillah ibnu Ziyad xamatul fu mu jëm jaaxle na ba génn na pale bi sax làqatu feneen wante ànd ak loolu lépp mu ngi dem xelam ak fu muy jaar bu mucc ak nu muy def ba tas mbooloo mi le foofa nag lay yëge ne ndeke waa Irak dañu bëgg àdduna dañu bëgg xaalis mu ne comme ñu ne ñun ñoo yor nguur gi te xaalis rek la ñu naa jaar bon ci ger su ma ko defee li ma bëgg mën naa ko am ci la dajale nag e, kilifa ya nga xamante ni ñoo ŋànk Irak masalan tey su dana ndakaaru la mu fexe ba e, lébu yi nga xam ne ñoo ndakaaru lébu yoof muy Eh, jël maletu xaalis jox seen kilifa lébu tëngéej ji noonu lébu yeen yi noonu waaw lébu wakaam yi noonu di ko defe noonu ba kilifa yi yépp daje kenn ku ci nekk am na lum la mosal ne la nag demal nga décourager say mbokk ci ñu ormal palais bi ormal gouverneur te itam ñu daq fitna bi bañ a topp gan gi nga xam ne ñëw na fi ba dëkk bi te kilifa yooyu ñoo bindoon lettre Seydina Xuseyn pour mu ñëw ñu teg moom kilifa yooyu ñoom lanu ñu xool naka la ñu doxale ni ñu doxalee mooy ñëw dugg ci biir mbooloo kenn ku ne def sa discours wax ne su ngeen ma déggalee na ngeen teg seen jaasi te sori pale bi te ngeen moytu fitna te moytu ki ngeen àndal jabar daan na dem ci jëkkëram fekk ko mu yor jaasi mu naan ko lii xare jaru ko nangam ak nangam dëkk bi jàmm rek a fi am jëkkër ja dugalaat tabarakallahu jaaseem wan muslim ibnu aqil gannaaw doom ñëw noonu kenn ku ne découragé sa sa jabar découragé na la wala sa kilifa découragé na la ñoom ñëpp yatasallaluuna waxidan waxida ñuy rocceeku di rocceeku di rocceeku di rocceeku ba quatre mille personnes yoo xam ne an ay soldats lañu woon yu àndoon ak euh, muslim ibn aqid pour ñu attaquer pale bi soixante personnes rek moom moo ci des ñu ci des ñëpp disparaître nañ dem nañ seen yoon. ngëm nga ak pas ak dogu ga àndee woon ak muslim xaalis tax na seeni kilifa découragé nañ leen dem nañu moo tax muy crise bu mag ci muslim lu tax ndax mbooloo mu toll noonu gunge la nekk ak yow bindi lettre am yuñ lay gëmloo tabaarakallaahu e eh, ñeenti junniy soldaar yoo xam ne ñu nga wër pale ba rocceeku nanu mu jiite leen tàkkusaan gis ne ñeenti junni mu jiite woon tisbaar rocceeku neen ba trois cinquante personnes moo ci des wala junni junni junni ba muy ñeent léegi ñeenti ñetti junni ya dem nanu ba benn junni bi wàññeeku na ba ñetti junneeg juróom fukk moo ca des ci ay soldaar yu nekk ci wetam bi mu leen jiitee tàkkusaan ba noppi mu gestu loolu la gis ci ñoom ñooñu itam am na ñeneen ñu rocceeku ba bi timis jotee mu jiite leen timis bi mu geestoo soixante personnes la fa fekk ñépp rocceeku nanu kon mu mel ni Ubaydullah ibnu Ziyad ah, plan bi mu tëral dox na plan bi dox na ndax ñeenti junniy soldaar quatre mille soldaar ñu découragé leen ci jamonoy tisbaar ñuy rocceeku ba bi tàkkusaan jotee trois cent cinquante moo fa des trois cent cinquante yooyu itam ñu leen di découragé ba bi timis jotee soixante personnes moom moo fa des soixante personnes yooyu bàyyiwuñ leen ndax waxtu julli wu ne muslim ibnu aqil moo leen koy jiite jiite na leen tisbaar ñooy ñeenti junni ñu rocceeku ba bi mu leen di jiite takkusaan trois cinquante lanu ba bi leen di jiite timis soixante personnes lanu léegi nag bi mu leen di jiite gee kenn nekkul ci ginnaawam moom kot moo julli gee ci jàkk ci ñépp dem nañ mu des moom sël xamatul fu mu jëm foofu nag la muslim jaaxle ndax irakien yi yëpp bàyyi nanu kenn gëmatu ko kenn toppatul ci gannaawam ku daan jiite lu tolloog 4000 personnes nekk sa gannaaw nga dem ba 350 ñoo la gëm mu dem ba 60 personnes ñoo la gëm ci diir bu yàgg kenn gëmatu la moom sel moo jullit kee sëlmal xamatul fu mu jëm muy taxawaalu ci mbeddu Irak yi ba yàlla dogal mu mar naan daal di dugg nag ci benn kër fekk fa benn jigéen mu ñaan ko ndox ndaw si may ko ndox mu naan ba noppi ci la génn nag toog ca bunt ba di xalaat ana lu muy xalaat nee naa Xuseyn na ñëw te xam naa fabu na mu ngay ñëw waa Irak de lañ ma waxoon yépp génn nañu ci waaw Xuseyn mii aw ma téléphone bu ma ko wooyee ndax téléphone booba xewul te itam boo yónnee woon ndaw fii pour mu dem ban ndaw laa yónni kenn gëmatuma fi ma fi ma toll nii aw waruwaay sax bu ma war a war pour génn dëkk bi. mu toog nag ci buntu kër ga ci jaaxle googu ndaw si génnaat mel ni soxla la doon doxi gis ko fa mu toog mu ne ko sëriñ bi yow day sa barab bii tuuma lay doon ci man ndax man kott di jigéen yow nga toog ni ci buntu sama bunt dafay am lu mu niru mu ne ko bul jaaxle ci dara maa di muslim ibnu aqil man la fi Seydina Xuseeni yabal ndike kër googu jaamu Muhammad ibnul Ashas mi nga xam ne mooy bras droit buuru dëkk bi di Ibnu Ziyad moom kër gi kon moom fi muy làqu daanaka daa mel ni tabaarakallaahu eh, di daw nit faf dugg këram noonu rek la demee yow ki ngay daw pour làqatu ndekki ci biir këram nga dugg tabarakallahu mbokk yi soxna soosu nag daal di koy fat ndekki ki mu fat ñi nga xamante ni ñoo moom kër gi moom la ñuy seet moom dong moo leen yitteel kon nag ñu teg foofu suñu baaraam muslim ibnu aqil fan la mujjëg waa iraq sidna xuseyn départ na jëm si na kuufa te taalibe yi ko gëmoon yi yëpp rocceeku nañu ba génn ci gëmatuñ ko àndatuñoo ak moom premier maanaam ambassadeur ba mu yebaloon jaaxle na ba xamatul fu mu jëm dugg na ci kër ngir laxatu ndeke kër ga mu dugg itam tabaarakallaahu du fu mu war a laxatoo waaw muuskat janaxkat da doon daw paxum da daw muus far ñëw dugg ci mpaxam te léegi muus ñëw fekk si ko fa kon ñu teg foofu suñu baaraam incha allahu eh, ñu fas yéene rek ci tam xarit gi a ah, jeexal karbala bi seen mbokk seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan wi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.